aja mbokk internet yi ñu ngi nuyu encore une fois ku fi taxawal nag xam ngeen mooy Mia Mia rek kenn du ko Sénégal gis na li nga xam ne nii mën na ko woowee sax fu mu toll nii euh, le précurseur wala euh, l' étoile filante de la musique sénégalaise xam ngeen ni son yi xam ne bëri bëri moo ngi koy waaj a génne son yi bëri nga xam ne génne na ko waaye bi nga xam ne moom tamit moo ngi waaj a ñëw Mia ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi lay ziar. toujours aussi belle. <laughs> merci beaucoup <laughs> kontaan naa. alors. bi yaa partout yi ngay def fi mu toll nii yëpp maanaam yaa ngi wër Sénégal koroog da nga jógee Fouta def ko Dóor loolu yëpp dina la lay kontaan euh, c'est toujours un plaisir dem si say mbokk ñu accueillir la teeru la def la buur. même bu fekkee ne yow yow euh, taalibe nga si suuf nga wàcc mais vraiment dañu yëkkati ba si kaw nga sentiment de fierté ndax say mbokk ñoo ñëw vraiment euh, buux la pousse la may la doole donc c' est vraiment un réel plaisir d' aller au Fouta de faire une tournée là et voilà tournée boo xamante ne réussir na vraiment ñu ngi waaj yeneen incha allah sama jaam yi nekk fa di fecc rek. dégg ma man sama jaam yi nekk di fecc rek. waaw waaw waaw dañoo kontaan dañoo kontaan da ngeen <laughs> dañoo kontaan xam <laughs> nga Tukulóor dafa bëgg mbokkam. donc voilà ne doo ko baddu la ñu wax. am ne dafa bëggoon fekk ko nuyu ko Ami Ndiaye la tudd. Ami Ndiaye su fekkee moom rek kooku. alors nen nen boo la fekkoon Fulé da lay ne bi yoon euh, ne nii mais Sénégal yi bëri na am Mia lonkoñ laa tur bi dafa xaw jàpp trop trop Mia fa la lonkoñ. waaw fu ma lonk deen ko xam très bientôt incha allah en tout cas lonk naa lonk bu dëgër. surprise la léegi mu génn. surprise est-ce nañ xaar Mia Guissé mois de décembre bi artistes yu bëri dañuy génnee Mia Guissé album. bien xaar leen incha allah album si mois de décembre bi ak concert bu mag a mag. incha allah. comment tu la musique sénégalaise fi mu toll nii. ah euh, macha allah ñu ku nekk si domaine bi mu nekk ñu ngi fay euh, ñu fay jéem a nekk euh, premier et macha allah kontaan naa si trop trop parce que su ma gisee tey ñuy déglu partout dans le monde fépp fu ñu dem ñu ngi teg musique sénégalaise fierté laay am di kontaan bu baax a baax. est-ce que mu yàgg si avec des peut-être Wally Ballago Seck am nga ko ba pare Viviane Titi Aïda Samb. album bi am na ay featuring national. am na ay featuring international. kon ça veut dire album bi ñor na ba pare ça veut dire que gars yi. ah kon ça veut dire album bi ñor na ba pare. ñor na ba pare. alors euh, Wally Seck foog ngeen def tri ñu toll nii moom préparé ñu doy waar alors lu ko international suñu bis door na fay xaar ban conseil nga koy jox. xaw ma lu ma koy digal xam naa ne yoon bu mu nekk xam na ko maîtriser na ko kàngam la si dama koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla sàmm aar ko. message bu fort nga lancé keroog. gannaaw ba ay trop trop mooy sa conseil bi passé nga xaw a faxastalu alors mais gis réseaux sociaux yi message duñ fa yokk ça c'était pour toi bah pour montrer qu'on qu'on peut tomber mais on peut se relever leçon de vie la pour ñëpp ah. Euh, donc nit ku nekk rek bu mu découragé si dara mën na daanu mais na xam ni moom euh, dëgëraayam force am mooy tax mu jóg donc conseil boobu rek laa bëggoon jox ñi nga xamante ne ñoo may suivre. des fois les gens ne comprennent pas. mais artiste dafa am maanaam sur scène ak loo xam ne nekkul sur scène c'est-à-dire maa ngay solo alors Sénégal des fois ñu am yenn critique yoo xam ne wala commentaire yoo xam ne yaa ngi koy gis alors ça te fait quoi. seen avis personnel la dama leen koy nangul ku nekk sa xalaat yaa ko xam dama la koy nangul mais man xam naa li may def xam naa sama bopp xam naa fi may teg sama tànk xam naa am naa plan de carrière bu leer a leer boo xamante ne tracé naa ko te euh, dinañ ko accomplir incha allah. international pourquoi pas incha allah. <laughs> alo un petit mot Sophia de jigéen la brave comme yow mu toll nii jigéen ñu bëri Sénégal muy yow muy Sophie et cetera euh, des femmes Sénégal dañu am yaakaar si yéen di gis ay xale yu ndaw topp si ginnaaw mbooloo des centaines de personnes topp si ginnaaw bu kee lu may racine de l'espoir ba tey ku am 10 ans mu ngi koy pété nii benn kàddu ngay sentiment de fierté comme ni ma ko wax dama kontaan parce que euh, def lu baax. dafa dafa dafa jafe nit mën nay def lu baax ni lay critiquer mais moom zéro faute lañ koy wax parce que euh, dem na ba accomplir benn maison boo xamante ne fa lay dimbalee xale yi et loolu euh, fierté gënu ko rëy contentement gënu ko rëy vraiment je trop fière d'elle et mi ngi mi ngi incité ñun tamit ñun jeune à vraiment euh, dem aussi si côté social gën a participer si suñu développement dëkk gi ñu jàppale jeunesse bi merci beaucoup merci à toi merci merci bien <laughs>